président Ousmane Sonko à partir du moment où il a fait acte de non acquiescement à partir du moment où les formalités yi nga xamante ne fa la notification bi ñu ko waroon a jox jaar te jaaru fa woon ci yoon Ousmane Sonko tey tey tey la gën a nekk candidat. foofu nag laay waxee ne Issa li nga wax sànq ne Macky Sall comme réussir na ko démb à partir de la justice créer benn couloir de la mort judiciaire pour les politiques ci biir justice. li mu réussiroon ak yeneen yeneen yeneen yeneen candidats yi. depuis mars deux mille vingt depuis mars deux mille vingt et un ñu ngi koy jéem si Ousmane Sonko. ba léegi on est en décembre deux mille vingt trois à deux mois des élections ba léegi Ousmane Sonko juridiquement est plus que jamais candidat à l'élection présidentielle. alors les seen mouvement Sonko présent su euh, fekkee je le souhaite pas. Euh, Sonko n'est pas réintégré juge bi maintenu sa décision n'est pas réintégrée si ban stratégie ngeen mën a mettre en place. xam nga parce que vraiment. Euh, dafa nit ñi wax les observateurs disent que gâchis la ak ak euh, Pastef lu mu xeex bu egg fii à quelques mois de la présidence amoo leen benn candidat bi ngeen teg. non xam nga euh, lu président Ousmane Sonko dafa dafa dafa am lu mu wax peut que nit ñi nit ñi nit ñi dañ koo jëlee yaakaar ne c'est un bon wala un vingt mots il a vendu au Sénégalais un projet il n'a pas vendu au Sénégalais sa personne sa personne mën na jiite projet. bu fekkee ne mbir mi dem na ba ñu ne moom mënatul nekk candidat te loolu gëm naa ne loolu warul mën a nekk te gëm naa ne du nekk. Hmm. mais yeneen stratégie am na fi bu boobaa bu jamono jooju ñu ñëwee stratégie yooyu ñu wan ko Sénégalais. wan ko Sénégalais mooy teg par exemple la candidature de Bassirou Diomaye Faye. ça fait partie des stratégies. Issa hmm. il y a beaucoup de stratégies qui sont mises en place. mais bu nekk bu jamonoom bu ñëwee. communication bi ci war a def. ñu def ko si. mais presque jamonoom ñëw na parce que wan nañ ñu candidat bi ba pare. muy mhm. Bassirou Diomaye Faye dem na wuti ay fiche de parrainage. yow yaa ko ah, jëli parrainage kay dem wuti ji parrainage kay candidat nga baara bien sûr donc Bassirou Diomaye Faye néew ma c'est le candidat bi dem déposé yi yooyu mais liñ jot a gis ñun ba léegi sur les faits la ñuy ñëw parce que ñun nekkuñu ci communication mooy que ni bi bi jël parrainage jotee jël nañ ñu bari après ñu ne kii moo ñuy demal donc loolu c'est les faits Bassirou Diomaye Faye en tout cas candidat la ba pour l' instant nii nii nii euh, malgré que defaguñ ay dépôt yooyu loolu sax bëggoon naa see ñëw ci euh, peut-être moom sa candidature évolution bi wut na fiche fiche de parrainage ba pare ak yooyu. oui comme ni ma la waxee gis nga dañoo tollu si période boo xamante ne nous sommes dans une confrontation ak benn régime boo xamante ne du respecter la loi te ñu ñëpp gis nañ ko avec ce qui s' est passé entre la DGE. Euh, euh, la cour de la CDC. gis nañ ne on est on est on est on est aujourd'hui gis nañ ne on a un régime boo xamante ne day utiliser l'administration pour ne pas respecter la loi boo nekkee ñooñu di xeex état bu nekk dafa am stratégie am. Mm-hmm. ils ont tout fait pour empêcher président Ousmane Sonko mu bokk ci parrainage citoyen yi parce que gisoon nañ ne bokkoon ci parrainage citoyen li ñu gis ci ci fiche 111 bi peut-être doon nañ gis du ko raw. mu ut ni stratégie ut fiche 111 fiche boo xamante ne mën na ko permettre bokk ci parrainage citoyen yi c' est une stratégie étape beneen bii di ñëw. ah c' était juste une stratégie. waxuma ce n' est pas juste une ah, stratégie. dama ne étape bii. loolu mooy stratégie bi étape bi di ñëw. dina tegaat beneen stratégie. mais ñi ngeen doon laaj ay fiches de parrainage baara baara sénégalais yi doon jëli fiche de parrainage li ñu jàpp mooy Diomaye Faye candidat maanaam dañoo teg ay stratégie Diomaye Faye fait partie de ces stratégies mënoo mënoo waxal mënoo waxal sénégalais yi sa bopp nga mën nga mën waxal Issa ñoo ñi doon parrainé dans tous les cas candidat lañ doon parrainé donc ñi doon parrainé yëpp dañoo parrainé la fiche de Bassirou Diomaye Faye parce que président Ousmane Sonko moo leen wax ne leen parrainé la fiche de Bassirou Diomaye Faye mais est-ce que le aussi c'est honnête parrainé Bassirou Diomaye Faye candidat bi nekk keneen est-ce que le aussi c'est honnête vis-à-vis euh, des sénégalais lañ. ëllëg ak si biir ëllëg ak si biir doo ma tontu baar. sénégalais yi nga xamante ne ñoo non la tontu. dama bëggoon del jeexal si Issa soog a ñëw si yow. d'accord yow la naa ko tontu <laughs> ëllëg ak si biir. Hmm. sénégalais yi nga xamante ne ñoo wóolu Ousmane Sonko nekk par rapport ak yow fi nga jaar ak ñun ak li nga ñu woon wóolu nañ la ba ba nga ñu lii mooy yoon bi dañ fa jaar yoon bu mu leen jaar la ñu jaar fa. Hmm. te pour l' instant fi ñu toll nii jamono ju ñu toll nii yoon bi mooy def président Ousmane Sonko président de la cinquième président de la République Sénégal. au soir du vingt cinq février deux mille deux mille vingt quatre. Hmm. yéen en tant que parce que ay ay allié mooy sur la question mooy sénégalais hmm. yoon ñu ko ñoom bu leen président Ousmane Sonko ne leen lii ma leen waxoon dindi naa ko leneen laa waxoon ñoom dañ koy nangul. Mhm. parce que lan moo tax adhésion boobu nit ñi war ko war ko war ko mën a interroger parce que Ousmane Sonko peut-être ëppul Sénégal xam-xam peut-être que euh, euh, euh, gënu fi juddu Sénégal mais dafa am jaar-jaar bu mu wan Sénégalais yi ak taxawaay bu mu wan Sénégalais yi depuis mu nekk inspecteur des impôts par rapport ak événement yi nga xam ne mu ngi koy dund. Euh, euh, di ko dund ak ngor ak teraanga depuis 2016 bi ñu ko rajee au niveau de de de la fonction publique par rapport ak projet politique bi mu jaay Sénégalais moo mën a permettre au-delà de son parti mu mën a mobiliser l'ensemble des Sénégalais wala une grande partie des Sénégalais mm-hmm. loolu il faut que nit ñi nit ñi nit ñi nit ñi gis ko boo xoolee euh, nombre de personnes yi nga xamante ne gannaaw bi ñu bi ñu bi ñu bi ñu bi ñu dissoudre Pastef la ñu wax ñu ñëw ne man damaa bëgg bokk Pastef mm-hmm. dem man ma ne gars yi man je connaissais Pastef parce que ànd naa ak ñoom 2017 ba léegi mais dafa mel ni ex Pastef bi may dégg moo ëpp doole Pastef bi ma xamoon mais moo ëpp doole Pastef bi ma xamoon man damay toog sama koñ fiche de parrainage meilleur fiche de parrainage di parrainer suñu koñ mais ma gis au moins quatre groupe de jeunes yu dëkk si koñ bi ku nekk yor say fiche de parrainage mais ay jeunes yoo xam ne xaw moon ne ñoom dañuy politique parce que peut-être doonuñu woon politique mais jàppale Ousmane Sonko jaral na leen loolu donc loolu mobilisation boobu mu Sénégalais yi am autour de Ousmane Sonko moo war a permettre man ki nga xamante ne mooy le président de la république sortant mooy Macky Sall futur ex ex président. Mm-hmm. Mm-hmm. parce que waaw futur ex président. comprendre que ne promesse démocratique du Sénégal Sénégal dëkk la boo xamante ne démocratie daf yàgg taxaw. Sénégal multipartisme dafa yàgg am depuis depuis depuis la période coloniale Sénégal contradiction dafa yàgg am te dañoo mës a régler suñu contradiction par les élections mu comprendre que ni situation bi ko gars yi bëgg dugal mu nar a rester dans l'histoire comme le président ki bi nga xamante ne moo nar a empêcher tous ses opposants mu nekk candidat vu que moom aujourd'hui il n'est plus candidat nan libérer le jeu politique libérer le jeu politique il a une fenêtre de quelques jours pour rectifier lu bari li nga xamante ne yàqoon na ko na jël chance là que que Sénégal lui donne de rectifier li nga xamante ne moom moom moom moom moom la defoon ñu permettre Sénégal yi dem à une élection présidentielle libre transparente et au soir du 25 février balaa ma naan au soir sax au matin du 25 février yaakaar nga ko ne dina dégg kàddu yi nga xam ne yu rafet la quand yow wax jubale ko ci moom. mais j'espère pour moom pour yow mi li gën si moom mooy mu dégg ko. waaw li gën si moom mooy mu dégg ko. sortir de l'homme politique qu'il est du président politicien qu'il est entrer dans l'histoire par la grande porte il a la possibilité d'entrer dans l'histoire par la grande porte mais il est aujourd'hui en de rentrer dans l'histoire par la toute petite porte mais euh, question bi nga xam ne moom la bëggoon laaj allié nga ci Ousmane Sonko parce que MRDS nga bokk. Mhm. Euh, en tant que allié tey yéen seen candidat mooy Ousmane Sonko parce que coalition Sonko président ci ngeen bokk. est-ce que finalement du nekk benn kii boo xam ne dañ leen di jël fu fu leen fu leen neex ñu teg leen fa parce que bu bu ngeen toogee Ousmane Sonko moo nekkoon seen candidat après bu ñu tànnee keneen ngeen dem ànd ak kooku bu ñu tànnee kii ngeen finalement est-ce que loolu dina nekk lu cohérent en politique. dafa am en tant am dafa am lu bari nu ñu xamul. et loolu man mën naa ko seede. parce que ñun bu ñuy ànd ak euh, bu ñuy ànd ak Pastef c'est depuis 2017 lors des de bien sûr gis nga Sonko dafa am une éthique du compagnonnage bu mu am maanaam rafetal àndin moom da koo xam li may wax nag waxuma ko pour tàgg ko su su sou souvent dama koy dama koy dama koy dama koy dama koy dal ci yenn yi mais ànd lii rafetal ànd da koo xam fa mu war a jaar ak ñi mu àndal dana fa jaar ak ñoom. mais dafa fekk ne ñun Issa dañoo nekkul dans une situation normale. maintenant yéen ñi di analyser da ngeen bëgg ñu situation yi comme ku nekkoon situation normale bu nekkoon dans une situation normale où man nga dem yoon dox li muy dox nit ñi respecté yoon bu boobaa yenn yi du am. mais nekkuñu dans une situation normale. et ku nekk dans une situation d' exception. foog nga ut ay stratégie d' aujourd'hui on est en de chercher des stratégies d' exception stratégie d' yooyu noonu nag d' accord nañ ñun ñëpp ñi nga xamante ne ñoo ànd ak Ousmane Sonko que aujourd'hui Ousmane Sonko est la locomotive. te en tant que kilifa kilifa dafa am loo koy bàyyee am na loo koy yebe mais am na loo koy bàyyee. le 14 le 14 euh, jàpp nga que ni àttekat bi doon àtte tey euh, dina prononcer une décision boo xam ne day suivre la décision du juge si Faye en tant que koo xam ne yàgg ngay suivre actualité politique mais aussi am na loo wax sànq ci justice. non justice kañ waxuma ci dara. Mhm. damaa jàpp ne. waay juge bu nekk moom day juger selon son intime conviction si axulaay temps la mhm. jàpp ne man gisuma. événement bu bees bu mën a permettre juge bi ne wax lu raw wala lu ëpp wala lu gën a yées li juge si fay wax. Mm-hmm. man jàpp naa ne amul issue la seule issue c' est de dire que Ousmane Sonko nañ ko delloo si fiche de parrainage mu dem ut ay parrainage am dem à l' élection présidentielle mm-hmm. gisuma ci beneen issue. mais yaa ngi wax sànq aussi nga naan euh, on n'est pas dans une situation normale mais est ce que situation bu nekk xalaat nga nii ak euh, cacophonie euh, bi ñu nekkee sur le plan judiciaire feuilleton judiciaire bi Sonko on est euh, prêt pour aller